sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ummatahu alaamatu icraadi llahi tabaraka wa taala an ilabdi ishtigaaluhu bima laa yacni alaamatu icraadi llahi taala an ilabd ishtigaaluhu bima laa yacni Among the many pieces of advice which Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gave to his ummah was the following the sign that Allah tabaraka wa ta'ala has turned away from his worshipper his servant his slave is his he's, he's busying himself in something that does not concern him قال وإن امرؤ ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له la jadirun an tatula alayhi hasratuhu and if a man has passed an hour of his life in other than for which he was created it is certainly fitting that his grief should be prolonged i.e. on the day of resurrection it can be on this dunya as well ومن جاوز الأربعين ولم يغلب ولم يغلب خيره شره فليتجهز للنار and whosoever has reached the age of 40 and his good does not surpass his evil let them prepare for the fire وفي هذه النصيحة Kifayatun li ahli al-ilm. This piece of advice should suffice, should suffice the people of knowledge. Allahumma ij'alna min ahli al-ilmi wa ahli al-amali wa ahli al-ikhlasi lillahi bi barakati al-Qur'ani al-karim wa hurmati al-habibi sallallahu alayhi wa sallam wa taqabbal minna amin. Wa sallallahu ala mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fiikum.